suy tey lu nga xam ne moom la ñu magal ñu koy naan fête du roi ñu koy woowee Mbeubeull te nag ñu ngi fii ak euh, benn princesse donc bu nga xam ne mu wax ñu lan mooy sensu Mbeubeull bi ñu koy ne bés bu la boos boobu la ñu waxal di fête léegi nag euh, nga wax ñu sa tur ak sa sant. Euh, maa ngi tudd salaamaaleykum Sénégal maa ngi nuyoo Sénégal yëpp képp fu mu nekk mu suivre émission bi Mbeubeull man maa ngi tudd Aguène Ndeye Yolande Lambal man Oussouye laa juddoo. Euh, donc euh, princesse là parce que mon grand-père fut un roi, le roi Siangébil Sambou. ma maman qui est princesse elle s'appelle Koukoukou Sambou Mangi euh, Delouat encore man m'a représenté à yéen et depuis 83 le festival des origines relation entre Diola le jumelage entre Diola et Sérère on avait choisi deux filles qui doivent représenter et yéen il y a dafa def man la tombé si Aguène à Niodior lañ ma choisir Aguène jambon mom mu ngi tudd ñoo mu ngi dëkk Niodior dans les îles de ñominka tay euh, maluma fi nek pour la fête de Khoumabël parce que euh, c'est une fête pour nous euh, pour toute la communauté d'Oussouye et puis tay fête Khoumabël bi dafa doon fête bu nga xamantene fête Sénégal yépp parce que fête Khoumabël sens bi c'est la paix l'appel de la paix te aussi Agéné jambon. boo gisee ñi créé ko l'association culturelle entre djola et euh, et Djola ak c'est lors de la crise en Casamance et te aussi rôle c'est créer la paix en Casamance Lolo te séeréer yi invité djola et djola. itam invité séeréer yi donc Madame dama taxaw fu nga xamante ne ko bëgguma fu violence nek. Fep fu nga xamante fu ñu taxaw jamm mëna samp ci Sénégal fofu moy sama fort point fort euh, Mangi ngi aussi jeunesse politique boobu mu ngi violence mënul avancer dek dañu war manko mànkoo ñu xool lan moo war développer Sénégal xoolal erreur bu ñuy yakku baxul yàqu baaxul deret baaxul na ñu xoolaat naka la ñu jëm suñu Sénégal jëm ci kaw maa ngi aussi ci état Sénégal parce que Humeubeul dafa don ben cérémonie bu nga ko dafa sans l'appui de l'État bël bi du ñu mën a am doole ñi def ko joolaa du ñaan joolaa du naan may leen ma mais fii nii dañoo toll fu nga xamante ne que état bi dafa war a gestu ak ñun mais aussi ñu ne ñu ñu ngi leen di remercier bu baax parce que état bi aussi ñu ñu ngi ñu appuyer ñu ñu jàppale bu baax ñu bëgg a ñu gën a yokk ñu représenté président Macky Sall mu ngi gestu bu baax roi Séné kii roi Oussouye bi et maa ngi remercier ñëpp képp étranger bu nga xamante ne dafa jóge fu mu assister bi mais maa ngi ñaan aussi képp nga xamante ne prochaine Humeubeul ku mën a yëkkati tànkoom mu woyof mu ñëw assister Humeubeul maa ngi invité ngi remercier képp nga structure bay yëpp ñëw fekkee suñu kuloba wolenge emelele kabisa kuwele lujo betoliyake asikulunkulu embelele kabisa kuwele ujobe toli yake. masi ale bɛ taa tɛ nana ko ye nana ko mɔgɔ. woyo nanu fa ye mɔgɔ ma jɔ sa. Mafia kule yana ta bi ko Pour le moment euh nañu wax Dieu merci. parce que dañoo toll fu nga xamante ko gars yi dañoo parce que taw bi dafa yéexoon mais on peut dire que fii nu aussi ñun on peut dire que alhamdulilah Dieu merci parce que képp ku nga gis faro yi gis ngeen ko jëmbat nañ ko yëpp te mi ñu ngi xam nga yëpp yàlla am na ay ñaan te ñu ngi sakkoo si ñaan yi taw bi incha dina dina am te dinañu am récolte bu baax comme d'habitude wa lolou du tax de il faut que ñu ñëwoon dimbal parce que roi bi li mu yor dafa bëri njabot bi machallah wa wa wa parce que roi bi sax d'ailleurs euh, c'est pas sa famille seulement qui est à la maison tout étranger bo ñëw aussi amo fa ngay dal fofu ngay dem wa il faut aussi ñi gëstu roi bi amul salaire lolou la bëgg xol waxat aussi avec le président de la république euh, may nañ ko auto bi auto bi sans le carburant auto bi du dox. ni ñu xoolaat naka la ñuy euh, gëstuwaat mbirum roi bi parce que loolu c'est très très important bu ñu mënee jàppale suñu roi mu am tuuti day baax trop trop trop parce que roi bi amul salaire wala ku yore jabut boobu ku yore structure am bu mu war a defar te amul euh, weer bu dee euh, dafa métti war a dem fi Guinée Bissau war a dem fu nekk ay mission yu ñuy def te amoo taxawaay dañ bëgg a gën a jàppale ñu gëstuwaat roi bi pour ñuy appuyer ko. waaw bi président bi état bi participé baax. waaw parce que waa kontaan nañu bu baax a baax kontaan nañu bu baax a baax loolu tax ñu ngi ñaan bu baax euh, jàmm dem jëm ci kanam waaw que tout ça se passe au Sénégal violence. Oh, oh oh oh Gracias. <laughs>